wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkke tuubaa ak li ko wër kaddu gu bàyyikoo ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm si ci xew-xew bi nga xam ne xew na ci Touba tax mu woo ki nga xam ne moo yore kàddoom di cheikh Mahamadul Bachir mu cheikh Abdoul Khadir mu ànd ak waa daayira nooru daare ni Touba ca kanam waaye ànd ak waa daayira ins bu tarqiya àndit ki nga xam ne moom la denk dëkk bi ci ndigalul sëriñ Sidi ginnaaw bu mu jotee ndigal ci sëñ Muntaxa di cheikh Abdoul Ahad Ka meeru Touba ñu daje fii ci kër cheikh Mahamadul Bachir gi nekk daarul minan sëriñ Bachir mu Cheikh Abdoul Khadir fas yéene yëkkati ay kaddu yu bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadoul kon ñun ñëpp dañuy maase déglu sëriñ bi su daanee lee ñu jox sëriñ Abibu Mbàkke mu Cheikh Mahamadoul Fadal mi jiite daayira Nooru Daarayni Touba ci kanam su noppee danañ jox monsieur le maire Abdou Lahad Ka su noppee ñu jox sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñi daayira Hizbut Tarqiyyah kon ñun ñëpp ñu maase déglu Cheikh Mahamadoul Bachir. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li haza wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi tooga jotaayu Serigne Touba tey ci kaw suuf ataalallahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jett li kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd gi mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bi tax waaye dara duy ko ci woon lu may toogal boppam ñépp gis ko ndax li xew tax muy kàdd yoo xam ne mu ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe bi murit yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi weesu di nga nekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te Serigne fonkoon ko lool daa ko dundalal boppam ak jëkk ahiyatu mawlid mawlid nabi min asasi ba ci njaareem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës bu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa yéwénal suñu mbir ci àdduna ak alaaxira la ci dolli ko waat mooy kàddu yu masaw yëm ci mboolem koo xam ne rek loro nga ci xéewal gi nga xam ne suñ borom moo ko wàccee ci kaw suuf muy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee nag képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mu ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekkee. waaye nag nañ xam ne lu baax moo dul yomb te Touba nag moom la Serigne Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwul saw xel dina la fi indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seeni dëkk ngir tumuraanke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak sëriñ bi kon bu sañoon ku fi dëkk ku ne ci jàmm nga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke mm-hmm. waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccoo moom mooy seet lu ko soob mu def ko te xam nga ne moom moom mii boroom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaniya xijajin illa xalilan lu jóge juróom-ñetti at muy sotti ki ci moom ab taw kon loolu ku ca xool rek lu metti metti metti da am xolub jëm ko moom waaye sëriñ bi nag nee na xam na ne taalibe yërmaane ji mu leen indal mooy la Sëriñ Tuubaa waxoon rek wal wàccu maahil xuma mi ba soñoon kenn du fi dikkee njàqare moo tax mi ngi masaw bokki taalibe yëpp ci lii xew ànd ko ñoom ndax lii kat xew-xew la boo xam ne bàyyiwut kenn bàyyiwut kilifa bàyyiwutub taalibe bàyyiwut kenn ñépp la dal seen ko ndax kenn ku ne la ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne mën ñii jot li kàddu yi sax dañ maa mujj jël oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal laalu ka gën a suufe ba ci gën a ka gën ñëpp ko yëg mhm. jumaay Tuubaa ji li ko wër gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñu borom rek boo ko ñaan la ma doon wax démb rek te suñu daal waxoon ne yàlla boo ko ñaanee la nga gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi mettit bi ñu nekkee ak tumuraanke gi ñu nekkee ak jaaxal gi ñu nekkee waaye nag bu ñu xoolee ci jëmm ak yërmaande jëm ñu indi ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg danañ tàggoog moom kon loolu mi ngi ciy dalal xel ñëpp te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir loolu nag sëriñ Touba dafa am lu mu digaloon taalibe yi bi muy digle jumaay Touba ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett la ci ndénkaane yi dafa waxoon ne lii ma leen di digal nag fu waa jëm nag fu yu bare mooy lépp lu ngeen bëggati walla lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bii na ngeen ci góorlu seen kéemtalaay kattan def ca la ngeen la ngeen man ak li ngeen mën te lu ngeen ci mënut fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam gu sell te fa ci seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijalullahu baara usi usran daana trikk nag maa ngi leen di wattandiku loolu lépp ndimbal loo xam ne bu leen fa yalee seen ajo yi dana leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen dina daane loolu nag li jiit ci loxoy maye mooy mën a soob lu jiitu see la koy xajee mooy ñàkk mën a soob kon taalibe yi ndigal loolee lañ topp baraay bi ñëw Tuubaa ndigal la lañ topp ba jumaay Tuubaa ji ñëw ba nëgë ni loolay woy moo tax lu mu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir itam balañ caa toog di xaar kenn nañ ko tàmbalee ji suñ bopp ba fuñ ci man a yam kuñ ciy fekk fekk suñ ca loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa dem jiyaatoo wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañu ndax ndox mi ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko na da ko tàmbalee ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon dama juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee na ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll faak ñu xam mu ne kon na joxe ñaat téeméer million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon sëñ Abibu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo jiite daayira Touba ci kanam dana jox ndigal sëriñ Abdul Ahad Mbakke sëñ Abibu mu wax ci turam ndax sëriñ bi xam na ne fekkoon na leen ci ñu nekk ja joxoon nañ ci digal bi ak ña ngi ci woon kon dafa def genn kuréel goo xam ne ñoom ñett ñi ñoo koy seq sëriñ Youssou Diop bu daayira moom itam mu ànd ko ñoom baat bi ma ci sëriñ bi ma ñoom de lépp lu jëm ci organisation luñ ci bëgg rek mën nañ ko ba ca ñetteel mooy sëriñ Abdoul Ahad Ka yàlla def nag ma sëriñ bi di woo fi fekk sax yëgoowuñ bi ma waxtaanee sëriñ bi ba nag mu ne moom kat daa mel ne lu mu noonu sax bu yëkkatoon waaye dama noonu naa bàyyi ba gis te mën na ko doo ko jox doo ko bu ñu ko woowee sama kanam itam laaj ko mooy bu ma waxoon ko dama doon laaj si ndigal ba xam lu ma ci war a xool naa ba gis ne war naa ma juróom benn fukki million yoo xam ne dama mëni su ko jënde ak ceeb ak ak diw ngir séddale ko nit ñi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu waaye ginnaaw bu loolu jàll it nag ñuy soññ bokk taalibe yi murid yëpp ak képp ku bëgg lu baax te man jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp ko kon sëriñ bi nee na mi ngi jigéen taalib yi yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbalee na ko def bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ku am kër ndax xam ngeen ne màggal Tuubaa màggal gi jàll na màggal Tuubaa gi jàll na li nga màggal gi jàll na nag kër yu bari seen borom néewtuñ fa kon nag rikk waaye ña nekk ci ña moom kër yooyu yéen ak lu kër ga rafet rafet buñ ko mën jël aale ko ngir si Sëriñ Tuubaa te xam ne kat yonente ba mu gàddaayee Makka dem Madina muhaajiroon ak al ansaar ñëpp xam nañ ne mbir dañoo ñii dañoo génn seeni kër joxe kon nag nañ xam ne ku def loolu itam daan tàbbi ci biir loolu kon ku am kër goo xam ne tëj nga ko te kenn néew fa war nga ko mën a aale ñaari weer wala ñetti weer bu ko defee mu jëriñ ñëpp ci biir ñoom seeni xalaat it fu ñu demaa defal ay tànt yoo xam ne danañ fi man di nekk ku ku miir sa miir te miir ba da koy denc rek ñu ñu def fa ay tànt ngir nit ñi mën faa nekk ndax sëriñ bi ci wàllu boppam moom xalaat na ci lotissement bi mu jëlee ci yoon Touba dana fa jël diir bu yaatu tabax fa ay kër def ko addi Sëriñ Touba mooy ko nit ndax xam na ne am na ci ñoo xam ne tumaranke leen tumaranke xam ne boo leen génnee ci ndox mi ba bi jeex bu nawet bi desuwaatee fa leen di fa ndax dañoo dëkk ci xur yoo xam ne lu fu nit war a dëkk loolee itam am na ci xalaat boppam boo xam ne incha allah bu nawet bi jàllee wala feeg nawet bi jeex dana ci jublu tabax fa ay kër yu bari def ko addi Sëriñ Tuubaa kon loolu itam lu ci waay mooy def rek xam ne lépp moom lañ koy defal waaye lu ci waay waaye def Sëriñ Tuubaa lañ koy defal te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne ku ma defal loo mën ma defal loolu loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jom mm-hmm. kon nag lu ci waay def rek nga xam ne pay ga Sëriñ Tuubaa doogu seqal te ñu ngi jeexal foofu kàddu yi mu jox Sëriñ Aliou Lahat mu àggali kàddu ci des asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant suñu ci tuddee Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy jiite liggéey bi te jot ndigal li ñu di ko jox nuyoo bu sell mu joxal ñu ko Serigne Mountakha xalifa senal de mourides mi nga xam ne mi ngi fii ci biir këram lañ nekk ci saal bi di waxtaan waxtaan yi di ci teg sëriñ Abibu Serigne Abibu Mbacke bu Serigne fàll mi ak Serigne Abdou Lahad Abibu ak Serigne Mamor mi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam ak sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy nekk ànd ci Hizbut Tarqiyyah te ànd ak mbooloom ak mboolem taalibe yi fi teew yëpp ak mbooleem kilifa yi nga xam ne tudduma seeni tur te ñu ngi fi teew ma di leen nuyu di nuyu di leen jox rek. am nuyoo bu jóge ci sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo waral ma toog fii di wax ci di te am ci moom ndigalam mu yebal ma ci sëriñ bi ne ma lu xew lu mel nii bu xewee na dem ci sëñ Basiiru mbakke Abdou Khadre wax ak moom dem ci sëriñ bi leeral ko ko ndigal loo ci jële ngeen jëfe ko ñu di la xamal ne rek la suñu sëriñ bi sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxoon ndigal moom xel mu rafet jëmu ci te ñu ci ndigal rek lañuy dox di massawu nag mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi te mbir mi dal ci seen kaw ndax booy massawu man nga ne dëkk bépp ngay massawu ndax lu mel nii bu xewaa sax dañ naan kart sàngam ak barab sàngam la gën a méttee waaye tey mbir mii fépp la méttee naaw fépp la méttee nag démb ba xewee ci suba ba nëgë ni ñu ngi ci waxtaan ak Serigne Bass mi ak gouvernement bi di ci diisoo ak sëriñ bi di ko yëgal li xew mu di ñu wax liñ li ñu war a def ba tey jii nag sëriñ bas mi woote ñu ne ñëw leen fii ci kër sëriñ bi ma jottali leen ndigal li fekk dem ba léegi ñu ngi ci xalaat ak conseil municipal bi ak bureau bi nga xam ne ñii ku nekk gis na démb bi mu xewee ba ndëgë ni membre bureau municipal bi sëriñ Issa mii moom sëriñ Moussa Bassirou sëriñ Moutada daaloo sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Moustapha Massam Babacar Mbacke ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy bureau municipal bi ñi nga ànd ak ñoom dugg nañ dëkk bi barab yu bare bari teg nañ ba suñ tànk xool la fa xew saafu anteeg nit ña xam li xew ndax loolu la ñu jiitale teg ñi ci kanam dëkk bi ñuy rendre lu xew ñu rendre compte ndigal luñ jot jëfe ko loolu rek lañ fi nekk ndax la sëriñ Abdoulaye waxoon ndigal moom xel mu rafet jëmu ca te ndigal rek lañuy déglu gannaaw nag bu yàlla dogalee ñuy ñëw ci sëñ bi waxtaan ak moom doon ko laaj nan la ñuy def gannaaw bu ñu jotee ndigal li fekk moom teg na ñëw mi ngi ci pexe yu mag a mag a mag ak yéene ju rëy rëy rëy mu ne ma nagal sëñ Basiiru Mbàkke mi ngi fiy ñëw léegi bu sëlmalee tusubaar day ñëw fekk bi muy ñëw bi ñuy ñëw ñu ngi nodd ñu toog ba sëñ bés ñëw mu waxtaan ak moom ba noppi wooñu nañu ah am ngeen digal ci def lii loolu moo tax commune bi génne na 60 million war cee jënd 100 tonnes ceeb ak 1000 bidons de vingt litres yooyu diw muy 60 million mu war ko boole ci ak lii nga xam ne moom la sëriñ bi eh, yëkkati di ko dimbalee nit ñi ñu jotaan nag leneen ndigal muy ndigal lii mooy na ngeen ko ànd ak Touba ci kanam ak bu tarxe yi ak commune bi ngeen def benn commission boo xam ne yéen a koy saytu loolu nag ñu di ci sant yàlla sunu borom tabaaraka ko taala di ci sant ñi nga xam ne ànd nañ kook ñoom ndax mooy li ma doon wax rek biñ ñu ne koor gi des na fukki fan ak juróom ñuy wu um dëkk bi am jafe-jafe ndox lool defe naa ne sëñ Mamour Mbacke mi ngi nii toog biñ leen wooyee ak sëñ Abdou Fara muy Touba ci kanam woo Hizbut Tarqiyyah yi woo mboolem acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dëkk bi maanaam ne leen li ma leen doon wax rek mooy commune bi de dafa noppi ci tàllal loxoom ci képp koo xam ne bëgg nga lu baax te yaa ngi yëngu jëm ci dëkk bi ànd ñu fas yéene ko ànd ak yow loolu bi ñu ko defee defe naa ne biñ dajee ca jafe-jafe forage mu ñu amoon jafe-jafe pompe ak i paan biñ ñun ñëpp biñ ko àndee bi ñuy laata am ñaar fukki fan defe naa ne am nañ solution bu wér wér ci forage yi loola nag laa doon ñaan rek di tàllaloon loxo mboolem ñi nga xam ne ay acteurs lañ yëngu ci dëkk bi te bëgg lu baax te bokk luñ luñ bëgg ndax ñu ñëpp defar rek lañ bëgg te kenn rek mënul def dara kon bu ñun ñëpp buñ àndee yaakaar naa ne songu lenn luñ songu ñu ko daan waxantuma naa rek biñ ci amee ndigal kon tey bu sëriñ bi wootee boole ñu ñun ñëpp ne nañu ànd yëkkati lu toll di jëf ji ma yëkkati joxe ko ah commune bi teg ci lii Touba ci kanam nekk ci bu Tarqiyyah nekk ci yaakaar naa ne loolu mooy doxinu taalibe te fas yéene nañ ko doxe te fas yéene ko rafetal te fas yéene ko wéral loolu rek mooy li nga xam ne moom laa ne woon danaa ko wax ci turu conseil municipal bi ci turu bureau bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di masawu bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ci am nañ ci ay jafe-jafe waaye di jaale ñi nga xam ne bakkan yi nga xam ne looru na ci ndax ñaari bakkan looru nañ ci démb tey jii am na beneen koo xam ne nii li ma doon wax ci presse bi na ngeen sensibiliser nit ñi te ci courant bi ak ndox mi ndax fu ndox taa te courant ne fa mën na indi jafe-jafe tey jii ki nga xam ne suñ borom dogal na mu nelaw mu mu faatu ci ci loolu la dafa dugg ci ndox mi ci kër gi nekk coupé wuñ courant bi prise bi jël na ko jël na ndox bi mu jëlee mu maas ndox mi ci la dox ci la daanoo ba ba ñàkk ci bakkanam léegi nii mu ñetteelu nit yoo xam ne seen bakkan dem na ci kon nag ñuy continuer rek di ñaax presse bi di leen ñaan ndimbal di leen soññ ñu sensibiliser nit ñi ci loolu nañuy sensibiliser nit ñi ci poto yi nga xam ne nit ñi nañ koy nañ koy dànd buñ ci wéeru waaye ndox yi nga xam ne dafa taa aussi ñu di ko moytu ndax xamuñ fu ci courant toll te kër yi aussi ñu ñaax leen ne képp kër goo xam ne nii ndox mi jóg na ba romb prise yi bu ñu coupé courant bi bu ñuy liggéey ci kër ga wala bu ñuy tànk ndox loolu waxoon nañ leen ko démb ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu